والقلم وما يسطرون euh, Serigne Sam Mbacké commission scientifique euh, secrétariat may wax ak yéen euh, xam naa li sëriñ Khadim doon leeral tuuti rek ci li ñëw pour am ñu ci gën a leer pour nit ñi xam concours bi naka lay demee concours la boo xam ne ni day laaj nga mokkal alxuraanu lépp day laaj xam-xam bi ñuy wooyee rasmo muy alxuraan karim ni ñu ko bindee woon bi fi Seydina Ousmane nekkee nga man ko ak la ci aju day laaj itam nga man li ñuy woowee mbindum Sénégal ñetti condition yooyu dañ ko ciy sant bu paree nag maanaam mbind mi rafet mais nag euh, fi ñu ñëw mooy euh, question yi ñu xam ne concours bi mënul am benn tappale kenn mënu ci jàppale kenn du ñuy def surveillance bi du élèves ci seen biir du candidat yi parce que ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy surveiller feuille yi ñu yor kenn ku nekk am na numéro boo ci nekk boo xam ne nii kii surveiller masalan saa yu ñëwee di ma xool ma numéro en lay gis man numéro un laa yor saa yu ma amee erreur buñ may jox beneen feuille numéro un ciy def su paree ba ñëw ci secretaria dañuy dagg numéro un bi ki doon surveiller surveiller numéro un bi mu doon gis dañ koy dindi suñu ko di am na benn code code boo xam ne code chiffre ak lettre lañ boole moom la ñuy dagg def ko ci nga xamante ne bii loolu man mi fi nekk foofu rek man maay xam loolu ñi nga xam ne ñooy ñëw war a corriger foofu yi ñeneen la ñuy nekk ñooñu buñ ñëwee ay ay chiffres ak code rek la ñu xam kii kum doon faaw liggéey bi day mel ne teg ci yoon corriger boobu itam dañ koy fooy bu ne dañ koy corriger au moyen ñaari commission ku ne day corriger su pare sa morom double lay nekk suñ paree nag ni ko Serigne Khadim waxee Mahamadan waxee ko ni ñu door taan nag vingt yi nga xam ne ñoo jiitu ci ñooñu ñooñu ñooy dem finaal 15 yi góor la nekk 5 yi nekk ay jigéen loolu laa li ma ci doon gën a dool waaye ñu xam ne daal liggéey bi série série boo xam ne ni mokkal lay nekk bu wér enveloppe boo loo ubbi loo fekk loolu ngay bind ni ñu koy contrôlé itam li ngay bind mënoo bind lu may loolu am na xam ne boo bindoon leneen boo ñëwee ñun danañ xam ne li ñu la laajoon ak li nga bind bokk parce que ay lay nit dem toog xam ne jafe ne mu bind leneen mais su ko defee bu ñëwee danañ ko mën a xam xam ne concours bi itam fu waaye mën na nekk préparé ko laaj na mokkal bu wér laaj na rasmu nga mën ko bu wér laaj na bapt nga mën ko bu wér aussi laaj na itam mbindum Sénégal nga mën ko aussi mu rafet su boolee yooyu yëpp nag ñi fi daje ñëpp nag ñoom ay miir la yoo xamante ne bi tànn ci ay vin day jafe parce que ñu ñu am qualité yu kawe lañ yore maa xam naa ñiy kuréel si ma ñu ma mais danañ sonn pour séparer leen wasalaamaaleykum. jërëjëf taala wa barakaatu ko maa ngi tudd sëñ Fallou Seck euh, di jot li santuk sëriñ Seck ci liggéey bi ci ñu ko seq. muy ñi ñu woowu ñu wuy si di candidat yi ñoo leen di sant bu baax a baax seen góorgóorlu di sant euh, commission yi leen yore di leen toppatoo ñoom itam ñu ngeen sant ci li liggéey ñu weesu ni mu woon lii noonu la doxee lépp tegu ci aw yoon euh, am mu jot rek ñu am ci ndam loo xam si mooy weesu muy ëpp ma bi ñu weesu kon nag loolu ñoo ngi jot seen cant bu jógu ci sëriñ ñëw ci ñu doon liggéey ak ñi doon contrôle ñuy liggéey muy góor ñi ak jigéen ñi bawuñ benn commission ci turu sëriñ ñoo ngi sant ñeen yéen ñi fi toog itam yor média itam ñu ngi sant ci turu sëriñ di leen jottali ak cantam bu jóge ci ñu ñëw ci yéen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu anta bi ni'mati rabbika bi majnun